asalaamaaleykum mbokki internetu SSP TV dal leen ak jàmm ci xibaar di wax képp koy gan ci bas bi ñu ngi leen ñaan nga abonné bés ko de notification pour bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko di nga ci mën a jot ci ni mu gën a gaawee. dañ koy dooree fee ci diwaanu Kolda lu doy waar moo fa am diggante takk der yi ak population bi ñu ngi wax ne am na benn xale bu góor boo xam ne mujjee na fa ñàkk bakkanam mu doon li nga xamante ni lu doy waar la ginnaaw nga xam ne Ousmane Sonko tàmbali na li nga xamante ni mooy caravanam bi fas yéene départ fi nga xamante ni mooy Ziguinchor jëm jëmale Dakar ñu nemmeeku ci caravane bi ay jàmmarloo yoo xam ni metti na lool fi nga xamante ni mooy diwaanu Kolda laata Ousmane Sonko di fa egsi ñu nemmeeku fa ay jàkkaarloo yu taratar jàkkaarloo yi nga xamante ni diggante yi nga xamante ni mooy takk deri ak population bi laata Ousmane Sonko di fa egsi ginnaaw bi nga xam ne Ousmane Sonko egsi na fi nga xamante ni mooy diwaanu Kolda ñu gis ñi nga ni mooy force de l'ordre yi li nga xamante ni mooy caravane Ousmane Sonko bi tere ko jàll fi nga xamante ni mooy diwaanu Kolda mujjee fa jàmmarloo jàmmarloo yu doy waar fa ki nga xamante ni mooy Alioune Badian mu mujjee fa ñàkk nga xamante ni mooy bakkanam mu doon mbir mu doy waar ba li nga xamante ni mooy caravane bi dañoo mujjee def li nga xamante ni mooy demi tour waaye ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko mujjee na egg fi nga xamante ni mooy hôtel bi nga xamante ni ci la waroon dal mu doon li nga xamante lu